Waju njoole la won bop bu rëy bopp bu la yoro ak kawar gu sekk gu la ku rafetoon ñaari bët la ku rafetoon bind la don ku gatt ak dok waye ñaari yelam yel yu tal la ñaari peregam pereg yu tal la yoroon batay dañ ca bindon ca kaw ni ku ñu nattu ku muñ ngi ni moy kan moy ayub ibnu amos ibnu tarikh. ibnu rom ibnu ayis ibnu ishaq ibnu ibrahim alayhim salaam mu ni ndeyam ci niti luut la bokkoon ndeyam mi ngi do bokk ci doomi luut ibni haran yàlla tabaraka wa taala daf ko tànnoon def ko mu doon ab yonent may ko it adduna mu am aw tagg ci kaw suuf suufu saam fépp di bokk di ko tagg la doon ak joor ak la doon ay xur ak doj yi ñëpp maasé di ko tag mboolem xeetu alal it yàlla mayoon na ko ko muy ay gileem bari la na ko lool doon ko bari ay nag doon ko bari ak jur doon ko bari ay fas doon ko bari ay mbaam dajale na ci loo xamante ni kenn ci ñam jamonontel dajale wu ngir ak bari jamono bu ne daana am juróomi téeméeri jaam jaam bu ci ne am soxna ak doom ak alali boppam moom Ayub yàlla mayoon ko ay waa kër ay soxna ak i doom mu am ak njaboot ay góor ak i jigéen waaye ci biir loolu lépp nag ku ragal yàlla la woon ku amoon yërmande la ci miskin yi daan yar jigéen ñi nga xamante ni dañoo amul jëkkër mu di leen jàppale di leen dimbale mboolem ñi nga xamante ni ay xale yu seen i wayjur faatu lañ it mu di leen jàpp mooy ñi ñuy wax ay jërëm di leen dajale daan ku daan teral gan la képp nga xamante ni dafa tukki ba agsi fii dana ko teral ba na fi may ko ab yóbbal bu mu jàll fa mu jëm ku daan sant xéwali yàlla yooyu ko yàlla xéwali la woon àq ja ca waroon jëpp mu daan ko joxe daan moytu lool seytaan di ko dugal dugal ko ci lu mel ni lim dugal mboolem niti àdduna yi ñi am alal fa leen seytaane dugal ci ak ndew akub càggante ak bari soxla ak bari yitte bay fàtte mbirum yàlla loolu li moom ko daan moytu la moom ayub alayhi salaam ànd ak nag li yor ci àdduna lépp nga xam ne ñëpp moo leen na ñetti gaay yoo xamante ne dañ koo gëm topp ci moom dëggal ko xam nga neelam benn waa ji mu ngi bokk ci waa Yaman tuddoon al yafin ñeneen ñaari gaay yi ci des ñu ngi bokk ci dëkk ba mu dëkkoon muy Rome kenn ki mi ngi tudd Malik kaja tudd Zafir ñoom ñooñu ay mag lañ wan yoo xamante ni li ñuy tudd ay dori moom lañ woon maanaam weesu nañu ak waxambaane te àgguñ ci màggat Wahab ne na Jibril alayhi salaam am na ci kanamu yàlla ab maqaama boo xamante ni benn malaayika ci malaayika yi amu ko ci jage ngir jage gum yege yàlla ak ngeneel lum am jibril mooy ki nga xamante ni mooy jële wax ji ci yàlla mu yàlla deme ba tagg ab jaamam sant ko jibril mooy jële wax jooju ci yàlla mikaayil topp ca ña ko wër nag nga xamante ne ñooy malaaykatul muxarrabin yi door a dégg tagg woowu nga xamante ne yàlla tagg na ko jaamam boobu ci kaw suuf bu loolu siiwee ci biir malaayka yi malaaykatul muxarrabin yi mujj ñoom ñëpp ñuy ñaanal jaam boobu yi nga xamante ni jaamu na yàlla ba yàlla sant ko tagg ko ba ñoom ñëpp ñu am ci yoon bu ñu demee ba ahlu samawaat ñëpp di julli ci kooku yi julli googu day mujj wàcc ci kaw suuf loolu yi mooy indi aw tagg boo xamante ne day daj kapp suuf si ñëpp di tagg jàmboo bi yi maanaam jaam bi dafay jaamu yàlla ba yàlla tagg ko sant ko jibril alayhi salaam tagg ko sant ko mikaayil tagg ko sant ko malaaykatul muxarrabin yëpp tagg ko sant ko waa kaw asamaan sépp buñu maasee di tagg jaam boobu ak sant loolu yi mooy mujj wàcc ci kaw suuf ba ñëpp di ko tagg ak di ko sant di ci moom lu rafet foofu fi la ayooba jaaroon alayhi salaam bi ayooba àggee foofu iblis mi nga xamante ni mooy kilifa seytaane yépp jamono yooyu mi ngi amoon martaba boo xam ne dana àgg ci asamaaw yépp fu mu fi bëgg a taxaw rekk dana fa taxaw ci biir loolu la àggee woon ci aadama ca fam nekkoon ca àjjana bu mën ko faa génne iblis continué na di yéeg ci kaw asamaaw yi ba nga xam ba yàlla yëkkati Isa ibnu Maryam alayhi salaam ñu door tere iblis ñeenti asamaaw yu mujj yi nga xamante ne ci ñetteelu asamaaw yi rek fi lay taxaw bi yàlla yónnee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñetti asamaan yooyu mu daan dem mënatu ca àgg ñetteel bi asamaan sax mënatu ca àgg moog ay soldaaram ak i kuréelam yi muy ànd yépp dañ leen a yiir ci mboolem asamaan yi ba yowmal xiyaam dootuñu mënatee àgg fa ñu daan àgg. ndare bu ñu nga xamante ne ci jinne yi ñooy dem di sàcc xibaar yi ci kaw te ku ci sàcc ku ci dem ba ci asamaan su jëkk si dafa sàcc ab xibaar yi te saa si la ab jun di topp xaalis sawar yoo xam dañ la koy lakke ba du dafa mën sàcc benn xibaar. iblis moom mi nag ci kañaan gi mu am ci doomu aadama ak coxarte gi bi mu déggee malaaka yépp di sant di ñaanal ay yooba di ko tagg ak mbañeel aku kañaan dox digganteem ak moom mu daal di gaaw yéeg ci kaw asamaan ba ci taxawaay bam mënoon a taxaw fam ca fañ ko fa yamale woon ci jamono booba mu wax boroomam ni ko xool naa mbirum sa jaam mbiri Ayyooba waaye gis naa ne jaam la boo xamante ne xéewal nga ko may nga ko ak xéewal mu sant la ci xéewal googu may nga ko jàmm mu gërëm la ci jàmm jooju waaye gis naa nattuwoo ko ci benn nattu tartar tegoo ko menn musiba gis naa ni boo ko tegoon ay xeeti musiba ak i tartar dëgg dana la weddi dana la fàtte it yàlla ni ko yaa wax loolu mu ne ko waaw mu ne ko ayoo baangoogu bàyyi naa sa digganteeg moom nga seet ba xam loo man ci moom léegi alali boppam daal loo ci man mën nga ko caa def nen noonu yàlla boobu di iblis daal di gaaw ba agsi ci kaw suuf dajale mboolem njuuma yi jinne yeeg seytaane yi ak ña ca ëpp kàttan ci ay pexe ñi leen nag lu ngeen am ci kàttan akub xam-xam na ngeen ko indi ndax alale ay yow yàlla bàyyee na ma ak moom nee na ma lu ma ci mën naa ko def te gis naa ne nit am alal ba mu jàkk mu ñàkk ko mooy musiba mi gën a kawe ci musiba yi mooy fitna ji nga xamante ni kattanu nit du àgg ci muñ ko kon nag def leen seen i paxe ba nu ngeen mën a def ba yàqal jàmm boobu rek ngeen yàqal ko ndax loolu yéen mooy seen liggéey am benn njuuma ci seytaan yi ku jóg ni ko man de am naa ci kàttan loo xam ni su ma neexoon danaa soppi ko doon ay xali sawar lépp lu mu am ci alal mën na ma soppeeku doon sawara dem lakk ko iblis ni kon yow li ma lay sant mooy demal ca gileem yam am lakk gileem ya lakk sàmm ya ko daan sàmm njuuma googu seytaane soosu daal di jóg nga xam ne mooy ndawul iblis daal di jóg jëm ca gileem ya fekk gileem yi ba ñëw ba goor ba tëral seeni bopp ba tok fa nga xamanteni fa lañuy dajalo nga xamanteni fa lañuy dajé buñu buñu buñ ba nit ñi amuñ lu may jek jek rek gis ay xali sawar yo xam dafa wër ngedd li kap rek mu jek jek di tak te gilem yaang ci bir gilem gi duñ daw duñ xam fuñu tak. daw jaar fuñu daw jëm rek sawara ci ci bor boba non lañ ci bir li ba jeex tak sàmm sa leen daan sàmm it nekkoon ca biir di defar ak ratt it ñoom ñëpp dañoo deewaale ci biir ca njëlbeen nga ba ci mujj dara des bi nga xamante ne lakk nañu alal jooju ba mu jeex Iblis daal di soppiku jëmm joo xamante ne dafa mel ni kenn ci ñi daan sàmm gilam yër daal di dem waaxu dem wuti Ayyooba ba mu demee fekk ko mu taxaw di julli mu ne ko yow Ayyooba Ayyooba ne ko labbayka mu ne ko ndax xam nga sa boroom mii nga xamante ne tànn nga ko di ko jaamu di sonn ci moom lim def ci sa giléem ya ak lam def sàmm sax Ayyuba tontuwu ko lenn lu dul ne ko alala ma sama borom moom may jaamu yi sama gileem yooyu ma am ak sàmm sa alalam lañu daf ma ko abaloon te moo ma gën a yaay ci alal jooju bu ko neexee mu bàyyi fi alal ji bu ko neexee it mu jël alal ji yóbbu ko waaye alal ji moom moomu ma ko sama borom ko moom te wóor na ma ni it awma dara wér na ma te awma lenn lu may nattale ci ne sama jëmmi bopp ak sama alal ji ma am lu àdduna yàgg-yàgg dinaa dem ba dootuma fi nekkati sama alal jooju dina dem ba jeex tàkk danaa jeex sama alal jooju day jeex kon yàlla lu ko ci neex rek te sama alal mu def ko ci ndax man sax xam naa ne mënu ma nekk te bu neexee yàlla mu jël ma yóbbu dal di deglu iblis mu ne ko sa borom mom ngay jambri yabal na fa sawara ci wu joge ci kaw asman di len yep lak ba nit ñepp nga taxaw jaaxle lool ñoom ñëpp nga taxaw di yemu ci loolu xew amna ci ño xamanteni ngay wax na dal li muy jamu du dara li muy jamu li mu ay waru kep la amna na ci ño xamni ngay wax naan ayoo ba di yalla ji muy wax ni moy yalla bo fekkone ni deug la xana dana ko meuna protéger ci alalam ji am na ci ñoo xam ne ngay wax ni yàllaam ji muy jaamu moo ko def lii ko dal ngir bëgg ay noonam mën a ndokk mën ko ndokk yàllaam jooju muy sonale boppam de du yàlla dara waaye ba mu waxee ba bàyyi ci xeet yi wax yépp ya nga xam xamante nit ñaa nga taxaw di ko wax ayoo ba ne ko alhamdulillahi allati ahtaani wa haythu shaa nasaha minni sant naa yàlla mi nga xam ne moo ma ko joxoon te fa mu ko neexee it fa la koy jëlewaat si ndax bi may ñëw ci àdduna day damaa rafle woon jóge ci sama biir ndey indaale moo fi mbubb indaale moo fi tubay te wóor na ma ne bu may duggaat ci bàmmeel day ku rafle laay doon du ma yóbbaale mbubb du ma yóbbaale tubay danañ ma pàng ma dem ci sama borom it te lii lii yàlla ci ab jaam day mooy lu ñu la abal loola sa borom abal waru caa am mbégte jamono ba muy jël loolee mu la abaloon it waru caa am njàqare ndax li mu la abal moo la ci gën a yaay kon saa bu ko soxlaa da ko war a jël te jaam bu ne it war naa xam ni yàlla lu mu ko may ba jël nangu loolee war a sant yàlla ndax bu ko neexoon mu boole waale ca ruug jàmbate bu boobaa dootu te fàggu dara sama ruug gii de bu neexoon yàlla mu boole ko ca ruug yooyee mu jot kon sant naa ko xaj na ay wu nekk ci man ak manqué gu nekk ci man moo tee mu jëlale sama ruu gi yóbbaale ko ndax man day demoon moo ma gënal ndax ma jege yàlla ndax ruu yooyee dem day damaa jàpp ne dañ maa ëpp chance moo tax ñu dem waaye bu ma amoon chance ak ñoom dem Iblis daal di jaaxle lool ci tontu lu rafet loolu nga xamante ne moom la Ayoba tontu ak ngëm gi nekk ci moom ak tawhid bu rafet bi ndax lam doon sàkku lépp yaakaar jëm amoon ci ne dana yàqal ay yóbbu yaakaar jëpp tas na mu delluwaat ci ay àndaleem doon ko perte doon ko torox doon ko sooy ca doon sàkku ci mu dikkati leen nag lu ngeen amati ci kàttan booy ñëwoo dajale ko ndax li man lépp def naa ko waaye ba tey jëmuma xol ba de xolub ayoo ba léegi jëmuma genn ñëw ma ci ñeg si gën a gën a bari pexe gën caa bon caa seytaane jóg ne man am naa kàttan goo xam ne bu ma neexee danaa yooxu xeetu yooxu goo xamante ni lu amagu ruu lu ko dégg sag ruu dana rot iblis ni ko kan kaay ma la kaay dem ca jur jur maanaam ca gëléem ya la kee demoon waaye yow kaay dem ca jur gu ndaw ga xar ya ak bëy ya ak ña koy sàmm mu daal di jóg dem ca jur ga xar ya ak bëy ya ak sàmm sa ba mu demee ba dugg ci seen biir daal di yooxu genn yooxu goo xamante ni jur gépp dañoo maase dee sàmm sépp maase dee benn iblis genn jëmati ca ayoba di nuru kenn ci ñi daan sàmm xar yooyu bam demee mi ngi fekk ayoba taxaw di julli mu wax ko lu mel ni lam ko waxoon bu jëkk waaye ayoba tontu ko lu mel ni lam ko tontu woon bu jëkk ni ko sant naa yàlla li ma ko joxoon jël ko te bu ko neexoon mu jëlaale ma ndax dama ñëw dama rafle te bu dana raf bu ko neexoon mu ma si te ndénkaan dong la woon ci man moom ma te ku dénkaane ku dem bu la neexee jël ko ndax yaa ci a yaay kan ko dénk tontu ko tontu lu rafet dellu ca tub bu sell gam nekkoon iblis gën a jaaxle delluwaat ci ay àndaaleem dikkati ni leen ba tey jamuma ab xolam de xolub ayoo ba léegi jamuma ko lu ngeen am ci kàttan na ngeen ko daje am geneen njuuma ku bari pexe ku seytaane ci ña nekk ku jóg ni ko man am naa ci kàttan loo xam ne bu ma neexee dinaa doon ngelaw loo xamante ne ngelaw lu tar lay doon luy rëdd loo xamante ne lu mu doom romb dana ko buur daaneel ko iblis ne ko kon demal ca mbay ma ay toole boppam ngay dem ca toole boo demee ca tool ya mbay moom fa bàyyi na ko buddi daaneel garab yépp ba dara du fa des mu daal di dem ba def ngelaw lu tar gépp garab gu fa nekkoon rek mu buddi ko ba mu mel ni garab mu si taxaw ci tool iblis jógati di nuru fexe ba melal boppam ni ka nga xamante ni moo doon kañ dénk wàllu tole dikk ci ayoo ba fekk ko mu taxaw di julli mu wax ko wax ju mel ni jam ko waxoon bu njëkk ne ko sa borom mi ngay jàmm di lam la def nangam nangam nangam waaye yusu ayoo ba tontu ko tont lu mel ni tontu lu njëkk la rek ci xel mu dal ak tawxiid bu rafet xamal ko ne ko daal yàlla moo ma ko abaloon jël na ko te ko able ko ne yaa gën a yaay ka nga abal bu ko neexoon mu yóbbaale ma ndax bi may ñëw ci rafet laa dikki woon te bu may dem ci rafet lay dellu nena iblis tambale ko ca bu jëkk ba ne ko xoolal sa gidam yi nim ko def xoolal sa yàlla mi ngay jaamu nim def juru gi nga amoon muy xare bëy xoolal yàlla mi ngay jaamu nim def sa mbay waaye lum ci wax mum jeex rek la ca ayoo bay teg mooy sant yàlla rafetal aw ci yàlla gërëm loo yàlla dalal am xelam ci muñ muñ musiba mi ci li ci des bi iblis gisee loolu nag gis ni moom pexe yi mu amoon yëpp jeex na te amul benn jeexit bu mu def ci ayóoba te gis na ni pexe yi mu def yëpp benn réussir ci loolu dis ci moom gan mu daal di yéeg bu gaaw dem ba ca taxawaay ba mu daan taxaw buy wax ak yàlla daal ko yow sama borom ayóoba day wóor na ko ni lépp loo ko mën di xañ di fekk mi ngi dese bakkanu boppam ay doomam di fi des rek dafa mel ni jox nga ko alal jëm dafa mel ni xañoo ko dara ndax mënoo maa may ma am kàttan gu ma dale ci kaw i doomam ndax gis naa ne doom yooyu moom su ma ca dalee moom mooy fitna ji gën a mage mooy musiba mi gën a rëy mi nga xamante ne xol mënu ko àttan te loolu moom kenn mënu ko muñ yàlla ne ko demal bàyyi naa si diggante ak ay doomam loo ci mën dafa mu daal ñëw ba àgg ci doomi yonente bi yàlla boobu di ayuba te booba ña nga ci taax mañ dëkke mu dem di ko puus di reng-rengee taax ma di ko reng-rengee ba taax ma mabbu ci seen kaw ba màbbee ci seen kaw mu wëlbatiku jëllar bi waat lépp toppaat leen bañ mokk rumbux ci biir mu fab ay dénk ak i doj xarab leen ko nga xamante ni jenn jëmm desul ci ñoom ba wépp meccital rek def na leen nga xam dañoo mujj ñoom ñooñu seeni bopp dafa jattu ñoom ñëpp jëm suuf doj yi feesi leen kaw iblis daal di jóg dem ca ba melal boppam ni jàngalekat ba leen ayooba boole loon mu di leen mu daan leen jàngal nga xam ne melokaan woowu la la feeñoo ayooba bi muy ñëw dafa àndaale benn xaañ-xaañ ci bopp bi wan ko ne ko man mii leen doon jàngal damaa génnoon jëm barab sàngam rek ni xaañ-xaañ bi sax ca la ma dal mu fexe ba kanam gi di sotti ko deret ngir bëgg mën a dëggal li muy wax mu daal koy xibaar xibaar bi fi mu jaare ak li xew ak ni mu dem ni ko yow ayoo ko sa doom yee da boo leen gisoon ak mbugal mi ñu leen mbugal ak taax ma nga xamante ni moo leen tiimoon ni ñu ko wëlbatee ci seen kaw ak ni ñu depte seen i bopp seen i ñoom ñëpp di sotti ko seen i yóor tóoru di jaar ci seen i bakkan di yor di gën ak seeni i tuñ ay boo gisoon seen biir yéenam xotti ko nga xamante ne seen buti jàngee wala wala di génn loolu di bokk gisoon sa xol bi dana daggatu continuer di ko wax yu metti di ko wax yu matti ba xolub ayoo ba yërmande ji daf ci tàbbi mu dal di jooy daal di ñëpp nga bëgg suuf teg ko ci kaw boppam léegi bi mu ngëbee nga bëgg suuf teg ko ci kaw boppam ngeen njàqare loolu mu am nag Iblis daal di ci loolu daal ne ginnaaw am na njàqare lii rek naa gaawaat léegi su ma gaawee njàqare loolu dana mujj ko li ma bëgg ci amati naa ko mën am ginnaaw tiit na tey rek waaye bi Iblis demee tuuti ayoba yàlla dabaatal ko mu fàttaliku yàlla daal di jéggalu yàlla ci tiitaange jooju mu téet daal di sant yàlla ci loolu mu def daal di dellu jaar fam daan jaar ñu mu daan àndal ci ay malaayka ñoom ñëpp ànd di ko jéggalu yàlla di ko tuuble yàlla ñoom malaayka yooyu nga xamante ne ñoo daan nekk ak ayoba it daal di jëkkante iblis ak yàlla dem ca yàlla te yàlla moo leen gën a xam li xew bi iblis ñëwee doon ko torox ndax li mu bëggoon lépp lam doon defar lépp yàquwaat na ginnaaw ndax ayooba ginnaaw bi delluwaat na am xelam dis na ci yàlla ba mu tuub jéggalu ko delloo mbir yëpp ci loxo iblis daal di wax yàlla ne ko ayooba day lii ba tey mën naa bañ a des ci moom alal ji mën naa dem ay doomam mën a dem waaye gis na ni li fekk mi ngi am bakkanu boppam li fekk ruug boppam gaa ngi mucc rek xam na ne mën nga koo delloo si alal jëm amoon ndax mën na ko fàggu doom yam amoon it mën na ko fàggu ndax dañuy wax ne nit ki mooy fàggu alal waaye alal du fàggu nit ki li tax mu mën a muñ lii mooy bakkanu boppam bi des ak ñàkk gi ñàkk yenn problème ci jëmmi boppam ndax doomu may kon ci jëmmi bakkanu boppam ak yaramu boppam léegi nga may ma ma kàttan ci ma dal ci kawam gaaranteel naa la ni su ma ko nattoo ci aw yaramam dana la fàtte dana la weddi dana weddi xew li nga xewal waaye loolu lépp yàlla mi ngi jubla woon iblis rek dëgëral gum dëgëral ab yonante wan ko ne ko sama yonante bi ma xas tànn ba dëgëral ko rek kenn mënu ko wëlbati te fokk rek sama nit lay doon te fokk yoon bi ma jaar ci la bëgg moo tax yàlla ne ko may naa la yaramu boppam ak bakkanu bopp mu nga dem loo ci mën nga def ko si ne ko waaye li ma la dul may nag mooy làmmiñu bopp làmmiñ wax ak xol ba ak xel moom mayu ma la si dara loolu lépp nag bi ko yàlla def am na xikma bi mu jublu njariñ lam ca jublu mooy ngir ko ngir màggalal ko ab ak payam ak yool bi mu war a am rek ak ngirit yàlla def ko jubloo def mu doon ak waaraate ci way muñ yépp doon ak fàttaliku ci jàmmkati yàlla yi ci musiba bu leen mën a dal buñ fàttaliku ayoo ba seen xel del bañ mën a continuer ci lañ nekkoon loolu la ci yàlla jóge ak bëgg ñëpp mën a roy ayooba ci ak muñ ak di yaakaar yool bi nga xamante ne mooy yoolu muñ bi ci nekk ko accès yi ci lu mel noonu rek mën a ko mën a jaar yàlla li mu jublu ci nattu bi mu teg ayooba loolu la ci jublu mooy loolu yi noonu bi yàlla boobu di iblis daal di jóg bu gaaw fekk ayooba muy mu sujjot jëkk muy yëkkati boppam ca sujjot ba mu mu mu jaar ca suuf ci suufu suuf si la jóge wol ci ñaari bakkan yi wol goo xamante ne dafa mel ni yaram wi daa jekk ci rek tàngandoo jër fépp di xasan rek mu jóg di wokkutu di wokkutu di wokkutu di wokkutu ba ay ren damm mu jël ay bant di ko wokk jël ay daj di ko ko wokke ba yaram wi daggtoo yàpp wi daggtoo moom ci boppam mu soppi ko mujj wokk wokk yooyu mu doon def yaram wi ba fépp dagg daa mujj moom ci boppam kenn mënatu ko jege ngir lépp ay góob la muy xeeñ bu muy xeeñ ba nit ñi mënatuñ ko dékku ñu génnee ko dëkk bi dañ ko génne dëkk bi kenn nangootu ko jege seen soxnaam képp moo nangoo jaxasoo ak moom ñu daan ko wax raxma waa dëkk bi dañ ko génnee yóbbu ko ba ci ab santaare ñu bàyyi ko defal ko fa benn néegu ñax soxna soo si di di Rahma di doomi Afrasim di doomi Yuusuf Yuusuf ibnu Yaqub alayhim salaam soxna soo si rek moo fa demoon desoon di ko toppatoo di ko toppatoo ak lekk di liggéey di mbindaanu lu mu am yet ko fekk ko ci biir seen boobee ñett ñi nga xamante ni ñoo ko gëmoon bi ñu gisee nattu bii ko yàlla nattu ñu tuumaal ko moom Ayyub daal koy bañ bàyyiwuñ diina ja waaye dañ ko tuumaal bi balaa bi yàggee ak natt bi ak musiba mi ñu ñëw ci moom te booba mi ngi ci biir biir balaa bi di ko yàdd ni ko jógal nag te tuub sa bàkkaar bi nga def ndax lii la yàlla teg de bàkkaar boo def la kon da ngaa war a jóg tuub ko li ñuy wax loolu am na benn xale bu ndaw bu fa teewoon waaye xale boobu ku gëmoon la gëmoon na ay yow ba dëggal ni leen yéen mag ñi de li ngeen di wax du ay wax la gënoon rafet ci wax di bàyyi ngeen ko xalaat ba gënoon a jóge defu leen ko mbir ma gënoon rafet ci tàggi ngeen ko ndax Ayóoba de am na ci àq am kóllëre am na ci àq am ci yéen kóllëre goo xamante ni ëppanti naag li ngeen taxaw di ko wax tey waaw ndax yéen xam ngeen ni ayoba mi ngeen ngeen djublo wàññi akam wala ak yalla ndax ormay ayoba ngeen djublo xoti wala ormay yalla ngeen djublo xoti ndax waji ngeen di ayibal xam ngeen moy kan ki ngeen di tuumaal nan day mooy yalla xana xamulen ni ki yonent bi la ab sopem la xana xamulen ni ne ci ñu yàlla la bok xana xamulen ni ayoba mi kaddu yalla la ci kaw so ci sen bisu tay bi ak kan mo len wax ni len yalla daf ko mere ba tax mu tek ko kan moo leen wax ni leen yàlla teraanga jëm ko teraloon muy teraanga yonent daf ko nocc ci moom yéen de gis naan li ngeen di yàgg yàgg ak ayoba li ngeen di ànd ànd ak moom rek ba léegi xamu leen ab dayoom ndax bu fekkee ni balaa bii ko dal moom ngeen ko xeebe moom ngeen sippee dara jaam xanaa xamu leen ni yàlla dana nattu yonante yi di nattu siddiqoona yi di nattu suhadaa yi di nattu saalihin yi daanaka yàlla ñi gën a baax rek lay fekk di leen tegal nattu waaye nangeen ngeen xam ne nattu boobu yàlla di nattu ñooñu de du ab tegtal buy teg leen def leen a bañ du ab tegtal buy teg leen def leen a doyadal waaye teraanga la ak tànn goo xamante ne da koy dolli ci ñoom ba mii bu fekkoon ne du mooy ba mii ak martaba bi mu am ci yàlla sax lu dul ni yéen ay mbokkam ngeen yu bokk ak moom nekk ci dëkk bi képp mbaa ngeen amoon ak moom relation bi ngeen daan ànd képp rek li gënu na rafet ci ko am xel au lieu ngeen di ko yedd mooy ngeen yërëm ko ci musiba mi ko dal mooy ngeen di ànd ak moom di jooy di ko jooyle lii mooy bu fekkoon ni ab àndandoo képp la bu ànd ak yéen ba lii dal ko ngeen dem di ko lul yàlla di sàkku ci yàlla ak jéggal li mu ko jéggal njàqare li mu am ngeen di jàq ànd kook moom boo amee mbégte ngeen bëgg di ko ànd kook moom bu fekkee ne dafa am lenn lu ngeen xam luy baax ci moom ngeen tegtal ko waaye moo gën yàlla moo gën yàlla max na ngeen ñëw di ko jëm a yedd te sax de du am xel bokkul ci ma bokkul ci ak njub jëf ju mel ni jëf ji ngeen jëf li ngeen jëf di ak réer gu mag la ay yéen mag ñi te ngeen ragal yàlla ragal leen yàlla ndax bu ngeen fàttalikoo magu yàlla akuk réem ngeen fàttaliku dee fàttaliku li nekk ci seen kanam de loolu képp mën naa dox mën naa téye seen lamin ba yóbban yi def rek li ko wax xanaa xamu leen ni yàlla am na ci kaw suuf ay jaam yoo xam ni daf leen a la leen noppiloo mooy ak ragal yàlla ñu ne cel waaye lottuñ ci wax luwun ñu am fasaaxa la ñu am xel la ñu am balaaxa ñu ami xam-xam lañu ci yàlla xam ay kimaan waaye buñ fàttalikoo maagub yàlla rek seeni làmmiñ day daal di dagg day daal dog seeni der kotamu seeni xol damm seeni xel tooy loolu lépp ngir màggal yàlla lañ ci jublu waaye dug manqué teg bi te saa bu weetee dañuy dellu ci yàlla ci jëf-jëf yu sell di jëf-jëf yu rafet jamono bu dañuy limaale seen bopp ci ñi nga xamante ne ay moykat lañ limaale seen bopp ci toñkat ya te fekk ni ñu set lañ dañuy limaale seen bopp ci way sàggan ya limaale seen bopp ci way gàttan ya waaye fekk ne ñu farlu lañ ñu dëgër lañ waaye seen diggante ak yàlla dara du ci bari ci luñ ci def duñ ca d'accord ci duñ ci gërëm loolu néew mukk it luñ ca def xel ko jamono bu ne ñii mokk la ñuy doon ñii la ñuy doon ñii tiit lay doon ñii miskin miskin la doon seen diggante ak seen bopp bi nga xamante ne xale bi wax na loolu mag ñi ba noppi Ayyuba ni leen yàlla de dana fab xikma ci yërmandeem jëmbat ko ci xolub jullit bu mag di ko jëmbat ci xolub jullit bu ndaw te xikam boobu saa boo ko yàlla jëmbati ci ab xol dana feeñ ci kaw làmmiñ waaye na ngeen xam ne xikam boobu nekkul ci ay at nekkul ci bijaaw nekkul ci bari ay jaar-jaar ak i nattu ak expérience te yàlla de bu xasee def nit ki mu doon xakiim ci ak ndawam na ngeen xam ne ko am martaba la te martabaam boobu dootu wàcc mukk fa boroom xam-xam yi xikma ya ndax ñoom saa bu yàlla defee ma ci nit ki danañ xam ni yàlla xikma boobu di ko dénk ku ndaw du ko dénk ku ndaw ak donte gone la ci at mag la Di ayo ba waxe loli ni len nak yeen da ngeen ñew and ak nar dik ngeen joyit jek ñu di len door te ken du mawle wa yeen de way ni ngeen nak man batay ji ngeen ñew dima yadd ci ni ma bala bi dama toñ yalla ba tax mu tek ak nar mi ngeen andal xanaa yéen di su ma leen ni woon sarxee leen seen alal yëpp ngir sama jëmm xanaa du ngeen ko def ngir yàlla xet li ma xanaa loolu de kon seen xel du ko xalaat su leen ni woon alal yi ngeen am fab leen ci ay gileem ak i xar ray ko ngir yàlla musal ma ci lii yàlla nangu ko nangu ko ci yéen musal ma ci musiba mi ma nekk lii xanaa du ko def dafa mel ni da ngeen ma mujj tay jii amatuma benn xalaat amatuma jenn wax ci sama diggante ak yéen yéen ñii dee tay jii yéen a gën a tar musiba mi ma dal tey bi ngeen waxee loolu nag daal leen di wan ginnaaw dal di jublu yàlla nag di xeetliku ci yàlla di toroxlu jëm ci yàlla ba wax ni yow sama borom di xawma lan moo taxoon nga di ma bind aka neexoon bi nga xamante ni bëggoo ma nga xamante ni danga maa bañ rek ba teg ma coono bu ni nga ma teg nga bañul maa bind aka neexoon ma doonoon rek sama yaay génnee ma ma doon deret ba ñu na judd aka neexoon ma xam bàkkaar bi ma ak jëf ji jëf ba tax nga wan nga dumóoyu ma wan ma ginnaaw lii ba lii ma dal lépp dal ma bu fekkoon ni rayoon nga ma day jëkk tey boole ma ca sama baay ya jiitu woon de dee googu yi sax moo ma gën a coono bii nga xamante ngi daje moom tey yow sama borom ndax doonu ma woon kërub waytu mu ndax doonu ma woon doonu ma woon saxukaayu miskin yi ci jamono ya may am ndax doonu ma woon kilifa jërëñ yi ci jamono ya may am ndax dawuma dimbulé way ñak jëkëri ci jamono yamay am yow sama borom man day maa ab jam la bu torox buma défé lu rafet sa xéewal tax ma def rafet suma défé lu ñaawit sama mbugal mi ngi ci sa loxo mën lu ma sama musibah dara tay jii nag def nga ma ma taxaw ci buntu musiba yépp ak balaay def nga ma ma nekk ci kanamu fitna yépp ba musiba tàbbi na ci man moo xamante ni boo fekkoon ni yan nga ko gileem sax gileem ko du ko attan kon sama doya di ji maak sama tuutiwaay ak ni ma doya di nan laay mën a attani musiba mu ko ma tëg yow sama borom samay baaraam dagg toon ba mënumaa yëkkati ab tëg jëme ko ci sama gimiñ te sama ñaari loxo yépp laa boole te du tax sax ma mën a jot sama gémmiñ bala mu caa àgg rek ci ab coono laa ci la ciy àgg yow sama borom samay siin yépp dañ sama yàpp bopp fulliku na dara nekkul ci diggante sama ñaar nopp yi luy dox diggante bi boo taxawee ci buntu ci nopp bee di seen ba ca des sama yor mi ngi yal liy toq ci sama gémmiñ sama kawari bët rot nañ ba dama mel ni sama kawar yooyu dañ ko lakk ci sawar sama ñaari bët yi sama ñaari nag bët dañoo yooru ci sama belah ndax amut lenn lu ko sama làmmiñ newi na ba fees sama gimiñ mënu ma cee tàbbal aw ñam lu mu tut tut te ci ak fat laa ko ci tàbbalee ñam bu ma rek mu fatloo sama ñaari tuñ neewi nañu ba mum kaw mi muur na sama bakkan tuñum suuf mi muur na sama dayi tikki samay daggatoo ci sama biir ba mënuma cee tàbbal aw ñam mukk ndare bu ne ma ko dugalee la ñam yi génnewaat ñam yi du am benn njariñ bu may sama kàttanu tànk yi dañ na bu mënatumaa taxaw ba dafa melni sama ñaar tank dañu wow ko ba tuma leena atal ñom ñaar ñaar tank yi sax amatuma kap ñu yëkëti iya diko tek alal jima amon dem ma mujju di talal sama ndijor bi di laaj ñi nga xamanteni ñu daan sakku ci ñoon ab tip tay ji may dem diko sakku ji ci ñoom yow sama borom sama doom yépp alku nañu bu ci kenn desoon sax dana ma mën a dimbali ci musiba bi ma nekk dana ma mën a amal njariñ waaye sama waa ñëpp yokkat nañ war ma gannaaw mboolem ñi doon sama sama samay mbokk yi sama roxam ñëpp sip nañ ñi ma xamoon ñëpp fakk nañ sama xarit it xeemam na kenn ku dul man kenn jéematu ta xaritoog man samay àndandoo yépp dagg nañu dem seen yoon ñoom ñëpp it àq ji ma amoon ci ñoom wedd nañ ko def ju rafet ji ma leen ma ñu fàtte ko Jamal bu ne maa ngi yooxu waaye duma am ku ñëw mukk le ma jamal bu ne may balu ak waaye duma gis ku ma baal sama ngóor si doon sama jaam sax woo naa ko wuyu ma sama xeet yépp ma torox lu jëm ci ñoom waaye amuñ yërmande ci man sa dogal dong nag fi toll mooy lii dox ci man te toroxtaane jii ma torox moo ma ko toroxal doyee di gii ma doyee di sab tag te la ko sab sab sab dogal ko def moo tax ma doyee te sa kàttanug bopp ak sa nguurug bopp it mooy li ma teg feebar bii ma dal ba sama yaram yépp woof bu fekkoon ni day sama borom dindi na tey gii ma ko tey ragal gii ma ko ragal bu fekkoon naj na ko ci sama dënn day ba sama làmmiñ mën a boy kon danaa wax ba sama gémmiñ fees ngir jàmbat sama digganteeg moom ci lii mu ma teg bu fekkoon ni day daam bi am na tan fu mu yaakaar ndimbal kon dana yaakaar ni bu ma waxee sama wax jooji ma am ci li ma war wax ci ay laaj kon sama borom dana ma musal ci jonne bi nga xamante ne maa ngi ci tey bi ayoba waxee wax jooju jëpp nag nga xamante ne dafay mel ni dafay jàmbat digganteem ak borom nga xam ne dem na ba mënatu ko muñ ba mel ni bokk muñ ci xaw naa wàññi ko tuuti mu wax wax jooju jëpp nag bañ fa joge mbooloo ma taxaw fa te mbooloo maa ngi taxaw ñett ñoo ñu ko doon yedd ak xale bi leen doon waar ñoom ñëpp ñu ngi taxaw aw niir daal leen di jege jege leen jege leen jege leen ba tiim leen ñoom ñëpp ba ñoom ñëpp dañoo mujj tiit jàpp ni lii de mbugal la moo xam ne day bëgg a wàcc ñu dégg ak kàddu gu woote ci biir niir woowu ne ko yaa ayub yow ayub ne allaha taala yaqul laka ha ana qad danawtu minka yàlla day wax na ni wax na la ni maa ngi nii nag jege naa la tamit bi nga jàmbatee sa njàmbat lépp jege naa la te mësumaa dañu di la jege léegi nag jógal ngant loo am nga wax ko jógal lay woo am nga wax ko tey te xulool sa bopp nag ginnaaw da ngaa jóg rek ngeen xulool man boo yeboon nag takk sag laxasaay bu dëgër te taxaw taxawaayu ku am kàttan ab ñaajaakoon ndax na nga xam ne yellut ci kenn muy xuloog man ku dul ko am kàttan ku mën a ñaaja de koo xamante ni ku mel ni man dong leen yellut mukk it kenn di jog di jéem a man ku dul koo xam ni am na ñeme gu toll ni mën a faboob nos nos ko ci gémmiñu gaynde ku ñemewut loolu rek waroo jóg di jéem a man léegi nag na nga xam ne dëkk nga mbër boo yoboo jóg taxaw ne ko man maa la xéewale sa jëmmi bopp ba nga amagut maa la amal may naa la mbir moo xamante sa kàttan mënu ci woon a mukk ak a neexoon bi nga demee nag ba taxaw di wax ak man lu mel nii nga fàttaliku nag nga fàttaliku ana fan nga bawoo dafa mel ni dangaa jóg di bari di ëpp leen man ànd ak doyati gi nga doyati wala dangaa jóg di xuloo seeg man ngirug mbewte wala dangaa yaakaar ne mën nga maa yay ci kaw wax ana ba may bind asamaan di bind suuf ana foo nekkoon yow ayoo bi may bind suuf di ko teg ci fondement bi ma ko teg ana foo nekkoon ndax xam nga kattan gi nga xamante ni jëfandikoo naa ko ba def loolu wala booba yaa àndoon ak man di romb ci cati suuf yi. wala wala yow ci sa xerañu bopp. ci la suuf si taxawee sax ci kaw ndox mi ndox mi du jaxasoo suuf si suuf si du jaxasoo ndox mi ndax sa kàttan ak bopp sa xerañu boo ko def loolu wala bi may liggéey asamaan di ko yëkkati mu doon ab xadd boo xamante ni dafa nekk ci jaww ji dara tëyewu ko ndax booba yaa ma ci jàppale wala yaa àndoon ma ci loolu ndax ma mën naa àgg ci nga nga nga def biddiw yu mel ni yii nekk ci kaw asamaan wala sa xikma mën naa àgg ci wuuteeg guddeeg bëccëg yi nga liggéey ko ndax man nga ko ndax yaa ko def jamono bi may bi may liggéey géej yi dex yépp jóge ci biir géej yi di tasaaroo ndax sa kàtt na ko def wala suma kàtt na ko def ndax jàppale nga ma ci aw fepp ci loolu wala sa kàttan moo def doomu aadama ci biirub ndeyam roxom gi fa fay nekk ñu yar ko ba nam ba nam mate ba na ruhum ga di ubbi ko mu génn ndax lolu sa kàttanu bop la wala sa xarñu bop la wala man mako def jamono yamay fab ndox mi muy joge ci kaw asamaan si sotti ko ci suuf si ndax yaama ci jàppale bay saxal gàncax gi nit ñi di ci dund ak jur gi wala man sama katan la ko def ndax doj samp ci kaw suuf ak niñ tollu ak niñ amé dool ndax ya ko samp ja sa wala man mako samp am jamono bi bëccëg di am ndax xam nga fan laa denc guddi gi wala guddi gi bi muy am fan laa denc bëccëg bi ndax sa na fa ana laa denc ngelaw li ba su ma jubluwut mu ñëw du ñëw ndax loolu maa ko def wala sa kàtt sa kàtt na ko def ak am xel man mi ko def ci biir dënni góor ñi xel yooyu ana ñu nekk ci biir dënni góor ñi ndax yaa ko ci def wala maa ko ci def ana kan moom la malaayka yëpp toroxlu ngir ak nguuram ana kan moo dot mboolem not mboolem ñaajaakoon ak mbooleen jabbaar yi ana kan moo leen not ci ak noteelam ana kan moo seddale wërsëg yi ba jox dàbba yi jox jaan yëpp ci kaw suuf ci ak xarañ ana kan moo def loolu ana kan moo sedd gaynde wërsëgam ba fu mu fu jóg dajeeg moom ana kan moo xamal picc yi seeni seeni dunduwaay ba waxtu wu ne ñu mën a jóg jëm ci ana kan moo leen xamal yërmaane bañ mën a yërëm seen i cooy ana kan moo def loolu lépp ndax man la wala sa kàttanu bopp la nga ko nga xamante ni yàlla waxante na ak Ayyuba waxante yi deme noonu yëpp nag ay alayhi salaam daal di wax ni aka neexoon suuf si xar ma dugg ci biir aka neexoon ma bañ a wax jenn wax juy merloo sama borom tey yi bi musiba mi dajaloo ci man daal ni ko yow sama borom tey jii def nga ma mel ni ab noon te xamal xamaloon nga ma sag sag it xam naa ko xam naa ni lépp loo xamante ne nga ko day sa loxo yu tedd yi ñoo ko jëf sa xereñ it moo ko settantal teyit xam naa ni day dara lotloowu la dara du nëbb dara du la nëbbu it dara du fàddu ci yow it lum tut tut yow it yaay ki nga xamante ne xam nga liy toq ci ay xalaat ci xeli nit ñi te wóor na man it sama balaa bii ma dal xam nga ko dara ëpp xam nga ci loo xamante ne sax xawma ko li wax nak dok ngant sàkku ngant ak lay rek moma taxone di wax waye nak bi nga ma noppiloo noppi di sakku sa yërmande ta fasna yeen dutuma delu mukk ci kaddu yi ngeen yooyu ma waxoon dootuma mukk ci atu fatna sama loxo yi tek ko ci sama gimiñ matna naa sama làmmiñ fab sama lex teral ko ci kaw suuf si ngir sama doyati ak sama toroxte noppi naa bi nga ma noppiloo it noppi naa ngir sama ñaawteef yi moo ma noppiloo yal na nga ma jéggal sama bakkaar yi yal na nga ma jéggal li ma wax te fas naa yéene dootuma dellu mukk ci loo xamante ni lu lay naqar li doon nee na bi mu waxee loolu Ayyuba daal di yàlla tabaaraka wa taala daal di wax Ayyuba ni ko yow Ayyuba sama àtte dox na ci yow sama yërmande jiitu na sama mer ba bi nga joomee jéggal naa la li nga wax lépp yërëm naa la it ba dinaa la delloo sa waa kër delloo la sa alal delloo la lu na toll ñu ànd ak ñoom ngir nga doon kiimaan ci ñuy ñëw sa gannaaw doon ak waara waaru it ci ñi nga xamante ñooy borom balaay doon ak dëfalit ci ñi nga xamante ne ñooy way muñ yi daal ni ko farkub bi rijlika haza muxtasalun baaridun wa sharaab ni ko nag jamal këddaal sa tànk fi boobu ba mu ko këddaa am lu mel ni dex bëtum ndox bu fa génne boo xamante ne bu sedd la mu naan ca ba màndi ba mu ca naanee mboolem tawat joo xamante ne nekkoon na ci biiram dafa daal di génn mu saafaraw bu set wecc mu daal ni ko sa àndandoo yooyu na nga leen jéggalul yàlla ndax mooy nañ ma ci yow bi mu leen ko waxee loolu mu daal di këdd bëtu ndox génn ba mu ca sangoo mboolem lu nekkoon ci moom ci musiba ci ay goma ay picca ge yépp dal di dañ mu dal di genn dal di tok soxna si joge ci fam dan joge dal di ñew ñew di setsi seet ca fam ko dan bayyi muy tedd nga xam ne ko daan bàyyi muy tedd ci ben barab rek sax yeeg yépp wër ko bi mu ba fam ko dan teral mu ñew fekk ko fa soxna si jog dal di mel ni ku telbati romb ko bi mu ko rombee gis Ayyuba mu sol yére yu rafet mel weneen melokaan wu rafet mu mel ni ku tëlbati ngir dem na ba fa mu daan tëral jëkkëram fekkatu ko fi mu ñëw romb Ayyuba mu sol yére yu rafet toog mu ne ko yow jaamu yàlla bi ndax am nga benn xam-xam ci waa ji ñu natt woon mu nekkoon fii Ayyuba ne ko ndax xàmmee nga ko boo ko gisee da ko xam mu ne ko waaw waaw nu may def ba duma ko xam Ayyuba daal di mooñ ne ko màng ngi nii jigéen ji bi Ayóoba ree mu xàmme ko ca reega daal di ñëw lëngoog moom biñ lëngoo nag Ibn Abbas wax na ni lëngoo googu biñ bi daatam dañ jëpp alal ju ñu amoon rek romb na leen nee na foofu yi loolu yi moom la yàlla junj ci alxuraan di wax ne wa ayubu isnaadi rabbahu anni massaniya dorru bi masaniya durra wa anta arhamar rahim la lahu léegi nag woote yi ci borom xam-xam yi woote mooy jamono yi muy woote ak diiru musiba mi nan la toll ak sabab ba tax ay yóbba wax masaniya dor ndax am na ku ñu wax ibnu xaqil ibnu shihab mu jele ci anas bin malik mu wax ni sallallahu bi wasallam wax na ni ayyuba sax ca bala ba fukki ab ak juróom ñet ñako ko won bañ ko ñako sori won bañ ko ba dess ñaari gaay yu bok ci ay mbokam yo xam dañ daan xey di ko seet si di gont di ko kaja kenn ka wax morom jani ko giñ na ci yalla ne ayoba dafa bàkkaaru bàkkaar boo xam ne kenn mës sa bàkkaaru bàkkaar bu ñu ka ca des ne ko lu la xamal ni la dafa bàkkaaru bàkkaar bu kenn mës bàkkaaru mu ne ko ndax fukki at ak juróom-ñett ngi yoo xamante ne mi ngi nekk ci musiba mi mu nekk yàlla yërëmu ko kon dafa bàkkaar waa ji loolu mënu ko muñ ba dem ci ayoba nettali ko wa nettaleeg ko noonu ayoba ne ko man de loolu ngeen di wax seetlu ma xaw ma bàkkaar bi ma def de li ma seetlu ci lu ma jàpp ni daal bu fekkee maa ko def moom la mooy mas na maa romb ñaari gaay yi xëccoo di leent yàlla ci seen biir di leent yàlla di xëccoo nag di ca werante ma di leen won gannaaw ba dem nëbbu ci sama biir néeg ngir bañ kenn kuy tudd yàlla ci lu dul ak dëgg maanaam werante wa ñuy werante ci seen biir di tudd yàlla kenn ku naan giñ naa ci yàlla nangam loolee mere ma ma dem fatu ji daal jàpp naa ne fekkee am na lu ma yàlla meree loolee la waaye loolu laa seetlu moom laa seet ci bàkkaar bu ma war def te la ma leen mere it mooy lu tax ñuy tudd yàlla ci lu ak dëgg la Ibnu Abbas wax ni yonent bi sallallahu moo ko wax ci Ayyuba am na ci riwaayaat yi koo xam dafa wax ni seytaane ba mu defee ay pexeem yépp te gisul lenn lum jariñ ci Ayyuba fa mu toll di muñ di gën a dolli ko tawxiid ci yàlla dafa dajale ay kuréelam yépp ni leen nag man de tiit naa ci mbirum ba ndax li ma xam lépp ci ay pexe def naa ko lottu doon na ma nag ndax fu mu toll rek mu ngi sant yàlla ndax ginnaaw yàlla bool def na ma alalam ma yàq ko mu boole ma ak alalam ay doomam ma rey leen bàyyi lu ma ko alal bàyyi lu ma ko jenn doom lépp mu muñ ko di tagg yàlla yaram wi def naa ci fu ne ab góoma nga fa te teewut muy sant yàlla ña nga ne sànni ko ci mbalit ma teewut muy sant yàlla de loolu tax na jaaxal na ma loolu moom ayoo ma bëgg nag ngeen dimbale ma yéen sama kuréel bii ku ci xam menn pexe moo xamante ne man nañ caa jaar nga wax ma ko ñu daal ni ko ana sa xam-xam ba nga amoon ak pexe ya nga amoon jamono ya ngay génnee aadama ci biir àjjana mu leen pexeyaan ñu ne ko ci jigéen nga ko jaareel mu leen waaw ñu ne ko demal jaar ci soxnaam ndax soxna sa boo ci jaaree mën naa am nga am ci benn buntu ñu wax ni iblis daal leen wax ngeen dëgg daal di jóg dem ci jigéenam dem ci soxna ay yow ba ba mu demee ci soxna ay yow ba daal koy fàpp li fiñ jaaroon fépp ni ko yow day sa jëkkër li mu amoon ci alal ak ak ni ci ab taar ak personnalité bi mu amoon te lii ko dal nangam ak nangam ba mu ko waxee wax a wax wax ba xelam jigéen ji am tiitaange ak i xalaat mu daal ne ko nag mën na la cee defal men ndaxe jigéen ji ne ko lu mu doon mu ne ko gàtt bii boo ko yóbboo mu rayal ma ko mu ray ko yéene ma ko maanaam nga xamante ne man la koy rayal daal jaamoo ma ko boo ko defee lépp lu de lu jóge woon ci moom dina dellusiwaat dina amaat alalam tàblu dina dellusiwaat wax nañ ni jigéen ji daal di jël gàtt ba bu ñëw ba agsi ci ayoo ba daal di yooxo ne ko ba kañ la la sa borom di mbugal mbugal yu tar yi mu lay mbugal te du la yaram ba mukk ana alal ji nga amoon ana jur ga ana say doom ana say xarit ana sa mbubb mu rafet ma nga amoon loolu lépp soppiku na mel bënd ana sa yaram mu rafet ma nga amoon ne ko dara amatoo ko fi toll ni sax yaa ngi nii di baagante ci yow dugg sa yaram week gën ren rendil gàtt bii ndax nga noppalu ci coono yi nga nekk ko nee rendil gàtt bii ayoba dal di xol soxna soosi ni ko yow di dafa melni nonu noonu ba di iblis mo la dikkal wax ji ngay waxe du yow yaay wax waye iblis mo sop, ba dugg ci sa biir moy wax ni ko de ñal na la ndax xam nga li ngay joy lañ ne bañ ba jamono bi am alal ñaata at lañ am alal lañ dund ci alal mu ni ko dund nañ ci juroom ñatt fukki at mu ni ko ñaata at la neena mu ne ko boobaag léegi mat na juróom ñaari at mu ne ko ndax bu fekkee ne nattale nga diggante juróom ñett fukki at yi dund ci alal ak juróom ñaari at yi ma ñàkk nekk ci natt bi day boo ko defee da nga xam ne maandu woo sa diggante ak sa borom ndax juróom ñett fukki at yi bànneex juróom ñaari at yi tax nga bëgg a wedd yàlla ci léegi daal ni ko tuubal te muñ te xam seytaane la digal li nga nekk waaye li nga nekk tar daal di waat ni ko giñ naan de jaamuloo gi nga ma bëgg a jaamuloo xeram naa boo rayee mburt mii boo rayee xar da nga am nangam ak nangam giñ na ne suma yalla wéré wéralee de dinaa la dóor téeméer yar ngir kafara ko loolu nga nekkon daal ne ko ta wépp ñam wo xamanteni ni yaa ma koy indil ak nan ko muy indil aram na ci man dootuma ci ci dara gëna wax nga lu mel li nga wax ni ko acci jogal fi bëggatuma la gis dal koy daq bu mu daxé soxna si soxna si dem bi ayoba bagi ne na na am sosu ba dem na aw ñam amu fi ak naan amu fi ab xarit amu fi mu daal di sujjootal yàlla daal di ñaan ñaan bi ni rabbi massaniya dur wa anta arhamur rahim daal di ñaan bi mu ñaanee lañ ko wax ne ko yëkkatil sa bopp ndax ñaan gi ngay ñaan wuye nañ ko daal koy wax ne ko urkod biriñ bi haza muxtasarun baridun wa sharab loolu ab riwaay la boo xamante ni ci riwaay yañ ci nettali la bokk ñu ni foofu yi la ayoo ba mujj ak balaa boobee bi nga xamante ne nag léegi këdd na suuf si ndox mi génn mu sangu ca naan ca yàlla demal bépp kii bu ko dal bépp feebar bu nekkoon ci moom mu wér peeg daal di sol ay yérem di gestu càmmoñ ak ndijoor jóge fa dem ba ci benn béréb mu toog fa soxna sa ba mu demee gis ni ba dàq na ko mu xalaat ni waaw man dàq na ma waaye mënul boppam dara su ma ko fi bàyyee fee mu dee ak xiif ak ku mar ndégment yi ñëw lekk ko loolu kon ay yëpp maa ko yan daal ne dinaa delluwaat ci moom ndax xam naa ne mënalul boppam dara bi mu ñëwee ba di ko seet si la xool xool gisul fa mu ko daan gisu ko jësan ba mu ko bàyyi woon mu jaaxle loolu di wër jàpp ndégment yi dañ ko lekk di jooy jamono boobu ayoo baa nga toog fenn rek di ko xool waaye nag melo wu rafet bi mu mel te yaakaari wu ko tax na ñeme wu ko laaj sax ayoo ba daal di koy woo ni ko loo bëgg yow jaamu yàlla bi mu jooy ni ko kañ natt woon kañ tegoon fii sànni woon ko fi ci sën bii damaa xamut ba xam dafa sànq wala nit ñi dañ ko lekk ajo ba ree ni ko lu mu doon ci yow mu ne ko sama jëkkër la mu ne ko ndax boo ko gisee da ko xam mu ne ko waaw bu ma ko gisee dinaa ko xam ayoba ne ko man mu daal di jooy mu dal di jooy ayoba ne ko man mi maay ayoba li nga ma digaloon ma rendil iblis ab gàtt ma bañ ko topp yàlla mooy seytaane moo tax yàlla dimbalee ma lii nga gis nii léegi nag giñ gim giñoon dana ko tuur téeméeri at nag moom la ko yàlla woya falal ni kon da ngay wut takkub ñax ay ñax ba mat téeméer nga takk ko benn takk bàcc ko ko bu ko defee téeméeri at yi nga waxoon ngiñ li dana dañ loolu mooy mujjug xissab Ayyuba ak soxna sax ak muñ gam muñoon waaye loolu lépp ci natt boobu yi yàlla mi ngi ci jublu rek képp koo xamante ni ab nattu dalati na la rek ci àdduna boo xoolee nattu Ayyub boobee xam ni àggoo ca te it yàlla balaa kenn am ci moom ab cërit coono yi demee noonu fokk nga jaar ci defal googu yi rek moom la ci jublu moo tax mu nettali ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alxuraan ngir bëgg mu roy ci aw xeetamit di ci roy lii kon ci mbirum xikma yi nga xamante ni yàlla doxoon na ko kañu waxoon Luqmaan Luqmaan nag ak wuute am na ci ñi ne nañ ab yonante la ñu ne déedéet dafa doon nit ku baax rek waaye yàlla tudd na ko ci alquran wax ni wala xadaa tey naa Luqmaan al xikmata anuskur lillah ginnaaw mi waxaat ni wa iz qaala luqmaanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azimun ba ca aaya ma wax ci alquran ni may nañu luqmaan xikma mu wax ni luqmaan doon na waar doomam ni ko yow sama doom bul bokkaale ak yàlla ndax bokkaale day tooñ gu mag la loolu alquran moo ko nettali delluwaat ni yaa bunayya innaha in taku misxaalu habbatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi l ardi yaati biha allah inna allaha latifun xabir wax na doomam ni ko na nga xam ne yàlla day lu sew rek moo la gën a sew ndax aw fepp pepp day wu nekkoon ci ron juróom-ñaaral bi suuf ca saxra daj wa nga xamante ne dañoo wax ne suuf si ca daj woowu la taxaw day fepp pepp wu ca nekkoon sax yàlla mën na dem ba lu xaciw génne ko kon yàlla ku sew la loolu yi ay xikami Luqmaan la yoo xamante ne alquran moo ko tudd wax nañ ne Luqmaan fi mu njëkk a feeñale xikam Luqmaan nit ku ñuul la woon koo xamante ne dafa nekkoon ci loxo yi ab sang di ko jaamu wax nañ ne xikamam bi jëkk a feeñ ci xikma yi sang ba daf ko mas naa wax ne ko demal rendil ma gàtt bi te indil ma ñaari dog yi ci gën ba mu ko rendee andil ko làmmiñ wax ak xol ba ginnaaw bi mu waat ko ab gàtt ne ko ñaari dog ya ca yées bëgg nga andil ma ko mu dem rey ko indiwaat làmmiñ wa ak xol ba mu ni ko waaw lu tax ma digal la nga indil ma ñaari dog yi ci gën nga indil ma làmmiñ wi ak xol bi ma laajaat la ñaari dog yi ci yées nga indil ma làmmiñ wi xol bi Luqmaan ni ko mbir day bu xasee bay baax nit ku mën a doon wala lu mën a doon rek la ca bu xasee bay baax làmmiñ wa ak xol baa ciy gën bu xasee ba yées it làmmiñ wa ak xol ba ñoo ci yées moo tax ma indil la ñaari Luqmaan daan wax ci xikamam ni genn xéewal melut ni wér genn xéewal yemut ak wér la daan wax genn alal melut ni wér amut genn xéewal gu mel ni daluk xel xel mu dalit xéewal féeri ko kaw loolu Luqmaan daana ko wax jële nañ ci Abu Hurayra mu wax ni benn bis benn waaye dafa romb Luqmaan nit ñi wër ko muy waxtaan mu ñëw fa ni ko waaw du yow mi yow ay jàmm bu ba ma xamoon nga doon sàmm ci barab sàngam ak sàngam neen Lokmaan ni ko waaw mun ko anama taw bi nga am nag loola ko may muy nit ñëpp toog waral ni nga di leen waar mu ni ko wax dëgg ak di matal kóllëre ak bàyyi lu ma amaloon njariñ ñett yii lu ma am moo ma ko wax dëgg ak matale kolere ak lépp lu ma amul njariñ ma bàyyi ko moom ma agsil fii ma àgg tey Lokmaan daana wax ni daanañu wax wax nañu luqmaan ni ko kan moo gën a tedd ci nit ñi mu leen ki gën a tedd ci nit ñi mooy ki nga xamante ni faalewut nit ñi gis ko muy def lu ñaaw nga xam ne la muy def du ci ragal doomu aadama kooku mooy ki gën a tedd ci nit ñi ba tey am na ku mas a wax Luqmaan ni ko yaa ñaaw sa kanam gee ka ñaaw mu ni ko waaw jëmmi rëdd bi ngay ñaawal bala ka ko rëdd ngay ñaawal mu ne ko lan mu ne ko man nga jubloo wax ne sama kanam ngay ñaaw wala ka ko defar man ngay ñaaw loola yàlla ngay ñaawal moom mi defar kanam gi wax nañ ni Luqmaan waxoon na doomam day ci biir xikamam ni ko àdduna day géej gu xóot la ñu bari ci nit ñi lab nañu ci kon wutal fabal ragal yàlla mu doon gaal gi nga xamante ne moom ngay jaare ci kaw géej googu yi dénk ya ca suufu gaal ga na ko def muy ragal muy ak ngëm gëm yàlla bagage yi ngay doxé ci bir gal gi nga def ko muy wakirlu ci yalla boko defé da nga mucc te japp ma ni sax da nga mucc nak oh, yow sama dom nit ñi ana lo lan mo waral duñu ragal la leen yalla di del ak lam leen di tekku te jamono bu neñ ñu gis di manki fuñ toll mu ne ko dama lay ñaan moy aduna nang ci jël li tolok sab dund rek waye bul ko dugg nak bul dugg aduna 100% ndax boko deh da nga lor sa alakhir waye bul bañ adina wacc ko it ndax boko waccé da ngay don aw gangal ci kaw nit ni na ngay wor koor go xamanteni day day wañi sa banex te bul koor koor guy dox sa diggante julli ndax julli mo gëna mag koor ko sama dom bul jang xam-xam mukk ngir di ci puukare wonte ak borom xam-xam yi ba ngay jang xam-xam ngir di ci ak way dessé yi wala nga di ci njëstal ci jataay yi bul bàyyi xam-xamit ngir dëdd ko ak xeemem goo xeemem ak réer yow sama doom na nga tànn jataay yi yow sama doom na nga tànn jataay yi yow sama doom na nga tànn jataay yi yow sama doom na nga tànn jataay yi yow sama doom na nga tànn jataay yi yow sama doom na nga tànn jataay yi